vân to a cha cha vân vân vân vân vân to a cha cha ziaré soxna Mbène Mbacke mu sëñ Modou mustapha Falilou mu Seex Mamadou Fadal di ziaré délégation bi nga andal ñëpp di len xol bët bi ñuy xol Serigne Touba ndax ñun fi yaa fi suñu Serigne Touba yaa garanti milieu bi. tubarkalla macha allah ñuy nuyu wa koñ bi ñëpp bayyi wuñu kenn té xamna nak ku bëgg dem da ngay and ak kuy dem Wa ku demut fenn mënul len? xamul len? ku and ak mom fan nga jëm waaw ñun président Macky Sall lañ andal ndax xam nga lan tax ñu and ak mom noo bëgg ki nu bëgg ndax ñun sëriñ Touba rek lañ gëm. sa Mbàkke loo ñu woo ñu wuyu ñun sëriñ Touba rek lañ gëm barke sëñ Touba sëñ Touba rek lañ gëm foo nu woo rek bàllee sabur ñu ngi sa ginnaaw muy tay muy ëllëg muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj foo ñu woo ñu sa ginnaaw. ba li nga bëgg ñu am ko ci barke sëriñ Touba Mbàkke ñun nag ñu jigéen daama dañoo sonn lool parce que fii bu tawee ñu ngi ci biir ndox mi guddi ak bëccëg amuñu yoon dégg nga gis nga suñu yoon ni mel. liggéey guddeeg bëccëg te gisuñu suñu bopp fenn ci politique Macky bu defee fas ci kiyam kon daa am signification kooku ñun la ko defal kon bulletin bi ngeen di jël lem ba mu jekk enveloppe bañ leen jox ngeen dugal ko ci te bu leen ko kol bu leen kol bulletin bi dañ ko ciy dugal rek ci maron bi dem ba ca kees ga ngeen dugal ko ci daal di dem ñibbi loolu rek lañ di ñun bu woote wuñ violence liñ leen di wax mooy bu bis baa na ngeen teel a jóg béti ngeen farlu centre yi nga xam ni ñoo nekk seen wet bu bu midi jotee ngeen mën a communiquer Cheikh Abdou Bali ni ko ah président Macky Sall am na ndam kàddu yëpp rafet na léegi nag ci làmb lañ jëm te làmb ji ñu jëm carte d'identité moo koy gañe jël leen seen carte d'identité ngeen denc ko fu wer say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo yow sàll ngaar yaay ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa président Sall ku gis jëf jure yi nga xamante ne ni jëf na ko si dëkk bu sell bii di Touba kon ñun waa Touba li ñu war a def mooy engagé wu fas yéene jàppale président Macky Sall kon sëriñ bi ñu ngi lay wax ni la fii si guy mbind baye boo nga dalal sam xel bu baax ndax soxna su baax sii nga xamante ne ni tey moo woo mbooloo mii mën naa laa wax ni la daanaka ñi fi nekk ñi bootu si ginnaawam mi ngi toll si juróomi téeméeri maire fas yéene jàppale soxna si. woote bi nag moo xaw a jàmp mais soxna si amoon na yéene boo ñëwee fekk kër gi fees dell ndax ñi bootu si ginnaawam bari na bari waaye goo xamante ne dama ni ko waxtu wi duñu ko may ndekoon dañ koy lim. soxna faat Fall mii bëgg sëñ Tuubaa nag a tax ma ànd ak moom ba ma wooyee nee naa ko ku ne soxla na ma ndax li ma yor fii ci mbooloo ku ne soxla na ma waaye yow de wóolu naa la waaye surtout ba ma déggee na yaa ngi fii ñëw. ndax guddeeg bëccëg ku ne may seet si ba ci sama daaray alxuraan jii ci guy mbind ku ne fay dugg ma ne ko man Touba Njaareem joxe naa fa ay porosé joxe naa fa lu ne ba saam gee fi mu ne nag mu ne ma ne ko damaa toog di xaal yàlla soxna Faat Fall nag wóolu ko ak jomam ak Pastef fa ma tax ma ñëw surtout nag bi mu ne ma yow mii la ndax man fekk nañ la ndakaaru ba sonn ca parcelle que soxna may kon maa ngi lay sant di la gërëm. nga jàppaleel ñu ko te sëñ Tuubaa tax nga xam naa ne yaa ngi ci taxaw. fañi fañi fañi fañi fañi doo a caca suñu carte yi nag jox nañ la ko ba pare ñun nag jeunesse bi ñoo ngi nii ñun jeunesse Lawbe yi dañoo bëgg nag bëggal leen bëggal suñu bopp fee ca Mbàkke ñu teel koo féete te xam ne ndam nii yéen am ngeen ko ba pare te ngeen am victoire soobee yàlla ñun jeunesse bi ñoo ngi nii nag ñoo ngi ci sa ginnaaw xale Lawbe yi diggante Touba ak Mbàkke ak Njaaréem Louga ba kaw ñëpp danañ leen woo soobee yàlla ñëpp dana ñëw nag ñu ngi ci seen ginnaaw nag za roga den na holo am fanyi fanyi fanyi fanyi to acha cha fanyi fanyi fanyi fanyi fanyi to acha cha e wai ma dai wai san gari lam to jar Abdou du ànd ku ñàkk fayda Cheikh Abdou du ànd ak ku amul pas-pas digganteem ak président Macky Sall jàmm ak salaam la xaritoo la yow nag soxna si ñu leen di sant bu baax lenn tit la ñuy ñaan ndax it Cheikh Abdou Bali neexuñu rek wala doomi sëñ Cheikh Gaynde Fatma dañ koy jàppale dañoo bëgg changement moo tax ndaw yëpp daw ñëw ci moom boo xoolee délégation bi délégation politique man yi ma daan ànd mag ñu mag ñu trian soli xaftaan di wut lu ñu am cib leader ñoo daan topp kilifa yi mais gone yu ndaw ñoo ko topp ak jigéen ñu sell ndax lim ci jublu mooy ndaw mooy ëllëg dañoo bëgg président Macky Sall gagné Cheikh Abdou Bali amnam jang ñu defal ñu ko ministre jigeen ñi ñuy yobbu màkk ci yenen dekk yi ñu leen bu amul ministre nak lool duñ ko mëna def. fan It's la bége ba ñuy xëccoo wurus yow sàll ngaar yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leen lelelelelelelel yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaayo aleen na autoroute ba Ila Touba tabax fi ay juma maki yow lan wóolu ndaa naan nga duñu la fi jële te bu ma duggee ci politique yaa tax ndax Touba laa dëkk yàgg naa laa dégg maa ngi lay seetaan YouTube maa ngi lay seetaan fépp kon lépp lu ñu ma wax ci yow rek am na lu ma xam ci yow lu bëri ñu ngi lay wax dalal jàmm nag te fii nii sunuy yaay ñoo fi nekk sunuy baay ñoo fi nekk sunuy sœur sunuy frère ñoo fi nekk te ñoom ñëpp mobilisé wu nañu ñu ngi sun ginnaaw gii kenn nekkul fenn de ñu ngi suñ ginnaaw gii suñ leen waxoon jii contre leen dañuy ñoom ñëpp dañuy contre un voix mënu fee génn. bu ñu leen siyaaree ba pare di dalal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma di ko ñaanal ci barkeb maamam ci barkeb xasaayid di li mu bëgg yàlla na ko ci Serigne Touba doole dooleel te may ko ci kàttan ba mu amee ko ni mu ko bëggee ngir bu ngeen gisee ma ñaanee foofu day sànnafin bi laa dararin njariñ lu andul ak lor rek moko taxajuk du intérêt bopam du lu mi def ci posam intérêt ji nga xamni ni amna ko moy limi satisfaire askan wi te digënté Touba ak Mbacké manki ko te man ci dara bëgg ngeen jox ko baat bëgg ngeen jox ko loxo bëgg ngeen and ak mom liggéey liggéeyal Serigne Touba lool rek la ci wut. kii de wa waa ba fi ne man na ma dëkk bofel ndax am ngeen cër bu reuy bo xamni xam ma xam ngeen ko. xam ma xamu leen ko xam ma di ngeen ko jàpp xam ma du ngeen ko jàpp waaye am ngeen cër bu mag a mag a mag ndax li ma sëriñ bi wax de bari nañu koy sabablu ci moom bari nañu koy sàkku te amagun ko muy santal ma waa boofeel gii ndax gis naa seenu taxawaay ci ba ma tàmbalee ànd ak ñoom ba tey ci taxawaay boo xam ni taxawaay la bu ràññeeku boo xam ni sëriñ bi sant na leen ci gërëm na leen ci te loolu rek mooy njariñ say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus